nga ci fonne que li nga xamante ne tey mooy Père Balla mi fi jógee yàlla ko yàlla yërëm ak baay ji ak yeneen yeneen est ce que loolu tamit manqué ko ci làmb ji si côté li mu doon bëree ci lu bari. non non loolu du ci dara. Balla Gaye bëri na six combats wala sept yoo xam ne xamuñ nit ñi xamuñu doomu Double Less la. man mën naa la compter six combats yoo xam ne Balla Gaye six victoire la tegle wala sept yoo xam ne Double Less taxawul ci géew bi. Double Less bi ko gaa yi xam yàggul. Balla Gaye daam kaañ da ngaa gis Double Less. Balla Gaye sàmbalaw bi da ngaa gis Double Less. bala Gaye Mbaye Diouf da gis Double Less kenn lañ mu jee gis Double Less Balla Gaye commencé fay ko 50 millions 60 millions xam nga la mooy mbër la nga daan def daaw mu jik la moom koy defaat mbër la la la la may ndam 2010 sëriñ nga sëriñ la daan ñaanal ngay am ndam ba bala kenn xam ñoom ngay jàpp 2022 entraînement ya nga doon def mil 2010 2011 2006 ngay am ndam moom ngay defaat sa xarit yi la doon jàppale ba dara doonul dara ñoom ngay àndaat waaw gis ba si ñi nga xamante ne ñu bari ñu ko doon sotti gàllaaj bi yoon ñu bari dafa mel ne gisuñu leen sax si géew gi parce que ba xoolee ñu Aziz Ndiaye ñoom ñoo koy sotti baree baree bari daanañ gis nag ku ci mel ne Thierno mu ngi woon mu ngi woon ci biir ci mbukaay beeg lu bari mais daal mel ne dafa am lu bari bari siwo xam la ngay sangoo ko gën bari na siwo yu mbër sangoo nii ci biir làmb yi du siwoy gàllaaj te gaa yi xam mu ñu mbër mu mën làmb sëriñ bu mën làmb ak sëriñu Bayra Ndiaye Serigne Bayra Ndiaye dafa am ak Serigne Lamba man Balla Gaye 2006 laa ko xam Modou Lo 2006 ñu ngi ñu dee ak man ci benn kër problème mu Balla Gaye ak Modou Lo du problème mu dara problème mu Serigne la ñoom ñaar boobu 40 mille lañ leen di fay ku ne benn tubay nga am benn yére ba ku ne dégg million waaye mbër moo nekk jikko boo xam ni mbër ña mu tàmbalee l'an 2000 du ànd ak ñoom fi te am doomu aadama yoo xam bës la ñuy wut kon tey ñaaxarañ lay wut Ahmed ay buzz lay wut ñaa lan la mën a lentil Balla Gaye lan la ko mën a wutal loolu buzz ñaa. ay buusee gaay buuse la buuse la mi nu bëy la yor day wax rek kooku farul fenn moo guy gi la woon. la loolu lan fantasiro parce que nit bu fekkee da ngaa bëgg a jël tànk bi teg ko Ndakaaru jël tànk bee teg ko Grand Yoff ba ngay doon nit da ngay nekk nit ñu xam la ñu xam la kii guy gi. seetaan naa ko mbapat maa ko njëkk yóbbu gabaar mbapat ñu fay ko 30 000 gabaar daan ko deux fois Liberté 6 xam naa guy gi nit ku gëm boppam la waaye nit bu fekkee da ngaa bëgg a gauche suba droite ah gars yi ni lay daw man ay buuse yooyu gëmuma leen bës la ñuy wut nitu bës la ñoom nitu rajo rajo télé la ñu ñoom daal dañuy wax ci rajo yi nii di coow li leen topp nii déedéet du noonu nit da ngay waaye da ngay dañ lay dañ lay xam ak kenn yow mu yàgg moom ba yow mal xiyaar boo ko bàyyee nga toog jàpp sa njàmbur. lan ngay wax Balla yi si kanam bu si bëgg bu koy gagné lan la war a defaraat. il faut reculer première sauté waaw ah, kuy dem ba xamatoo fa dem da ngay dellu si ginnaaw pour mën a tëbaat il faut mu defar cummi kaayam mu xoolaat an mu xoolaat yaramam staff technique bi mu defaraat ko defaraat encadrement bi ku nekk li nga xam ne yow moom mooy seen métier moom ko jàng nga yam foofu na wuti man su doon Balla Gaye lu ma doon conseil en tant que Balla Gaye nañu jëli Mbaye Samb Mbaye Samb bi ñu formé ko Balla Gaye père Mbaye Samb mu ngi foofu man Mbaye Samb def naa ak moom huit ans ci benn saal mbay Samb mbay Tine ak jigoo bi nga xam moo yor moo yor ëmma seen entraîneur am ñëpp sama ñoom ñëpp ñoo yar boobu ñeen dem si yàlla si yàlla na ko yàlla xare àjjana moo moo ñu doon formé man ne fekk fa grand yooyu noonu ak jimbóor yi man yàgg naa ci biir gone yi biir grand yi Mansour Diop mii damaa taxaw ba tàyyi muy jàngale bëri may xool 95 ba 2022 maa ngi ci sport nit xamu fi lu ma xamul waaye nag